arrestation. vraiment, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur tout ce qui se passe actuellement. Rapidement. Voilà. man dañu ne woon justement une délégation du F24 ñu ne dañuy dem ne meek Ousmane Sonko en tant que chef de partie membre de la plateforme donc ñu def benn euh, délégation ñu ñëw ba jub si Souma assistance euh, on a vu qu'il mu commencé am ay ay ay ay ay échauffourée on a vu la police devant ma ne chauffeur bi seeral ci parking bi mu seere ci parking bi ma wàcc oto bi tranquillement j'ai même ngoone saaliw posé ma quelques questions ma wax ni ma paree noonu di traversé ñëw rek police chargé non police chargé grenade boum boum ah, boum sama kaw mu yegg je me suis arrêté parce que dans de pareilles circonstances ñu dóor la grenade say suufu tànk saxaar si di la da ngay taxaw ma taxaw parce que fu ma jëm c'est comme ça qu'on m'a pris ñu yóbbu ma Et un on m'amène au commissariat central. C'est là-bas où un mécanisme ki a été mis en place, benn machine boo xamante ni un machine une machine à produire des chefs d'accusation. C'est-à-dire dañu jël ñu dugal ma dans tout un groupe de jeunes ñenn ñi ay laveur de voiture la ñi nga xamante ni ci seen activité activités laveur de voiture ñenn ñi ci ay rafle lañ leen rafle ñenn ñi c'est des manifestants yu tojul yu kii mais c'est des manifestants donc on me met groupe on dit chef cinq chefs d'accusation euh, participation à une manifestation non autorisée trouble à l'ordre public manœuvre de nature à créer xawma lan des troubles de, de nature à compromettre la, sécurité, sécurité publique ou à entraîner des troubles mais, politiques graves bi bi mais bi ma ñëwee lieutenant ma liir ko ma ne ko lii <laughs> mu ne ma waaw ma ne ko lii du ma ko signé ne ma annoncé comme ça ñun xawma lan ak lan ak man je signe pas jëm kaw jëm suuf ma ne ko du ma ko signé signé ma ko et on m'amène on me défère léegi ci déferment bi et loolu beneen affaire la may mun a en terme de droits humains gis nga c'est les retours de parquet là il faut les vivre pour xam mais à quel point c'est déshumanisant pour tout ce qui les vit. mais j'ai vu keroog ay jeunes yu ñu arrêté depuis dix jours. non non ñu ngi leen di doog a placer sous mandat de dépôt. non gis nga retour de parquet. déjà dañu lay garder ci commissariat dans des condition yu grave yoo xamante ni y a juste un coin ay bouteille lañ leen di tegal pour que ngay tuur ndox ay góor yàlla benn kiiwu 4 mètres carrés ñuy sol di sol di sol tàngaay bi. mais je et et vous étiez vous étiez dedans. fa fa la gars yi di nekk imagine toi. non vous étiez ñu gis kenn ils sont enfermés 24 heures sur 24 comme ça ci ay retour de parquet. yóbbu la section de recherche de petit kii comme ça et après tout ce monde se retrouve à la cave gis nga cave bi da ngay gis benn pièce bu toll nii on met on met on met ba da ngay jékki-jékki bu ñu indee groupe rek ñu nekk ouais ouais non les gens se mettent à crier comme de gamins tellement c'est mais quand on me dit que Cheikh Bara il a piqué une crise dans la cave tu comprends c'est en fait et ils ont choisi de procéder comme ça et tu viens dans la cave tu fois des jeunes xam nga ñun ay militants lañ xam nañu les militants ñuy militer wala truc mais yenn jeunes yi man yaa un gosse dafa mel ni sax ku muuma xamul sax lu ko fa indi. à un moment j'ai dit à la brigade de ma ne yéen xanaa da ngeen am ay prime par tête mu ngeen jàpp na ngeen jàpp rek c'est vrai am na ñi nga xamante dañuy dem kase ay kilo lu kenn seppi. képp ku dem di taal oto wu nit ak yooyu bon il faut loolu yoon na def li muy def parce que kenn warul casser oto wu kenn kenn warul attaquer këru kenn loolu kenn kiiw kenn warul casser des biens publics aussi oui kenn warul ko casser sa je le dis mais y a des yi nga xamante ni dañ gën manifester defuñu loolu yëpp ñu jàpp leen mais am na ñi nga xamante ni il y en des centaines may mun a c'est des rafles man Samba Kor certainement il boo ko xoolee yiw dafa génn jumaawu deux fois wu kii mu génn ci jumaa bi toog di takk ay dàllam rek fa lañ ko fekkee jatal ko le seeni le jeune sénégalo-américain ci VDN ay oto lay jaay mu indi conteneur oto nekk ci VDN bi affaire yi di ki mu yor téléphone am rek ñu ñëw saaga ko saaga bu kii forte. non y' a y' a un exemple cocasse un certain un gars qui qui fait de la vente très très très ironique. <laughs> un certain Zal mbay <laughs> nee na dafa jaay ay caleçon moom les gens le regardent sur Facebook di dem ñu rafle ko on l'a gardé quatre jours. mais je te dis et et et et y' a quelqu'un qui m'a signalé nee na un sénégalais boo xamante ni Côte d'Ivoire la juddu mais c'est un sénégalais de place de l'indépendance la ne woon ñu ñëw interpeller ko mu wax. mu takk ivoirien rek ñu ne ko ah ok yan yan a ñu yóbbu ko du ci dara y a plein de jeunes comme ça et après xam nga ce que ça crée quand tu prends ta jeunesse nga koy étouffer di ko kii noonu je vois des jeunes yi nga xamante ni ci kaddu je sais que des jeunes qui ne sont jamais allés à une manif ils sont pas engagés ñu ngi seeni mbir. bu am ko ma ne man bu ma génnee fii léegi ah. Mm-hmm. damay dem manifester alors qu'ils n'avaient jamais manifesté xoola une vidéo que j'ai vue euh, de bu def un témoignage de ay boy yuy jaay ci marché wakkaam bi affaire yi commencé kii rek ñu wàccee seen i kii ñëw dugg seen biir néeg tëju ay manifestant di kii gendarme yi daw di kii y a cette image là bam bam mooy gendarme yi bi ñuy kii buntu benn buntu ne ñoom la woon ñan ñoo fu nekk ñun la ibbi leen sinon dañuy défoncer le temps ñu kii rek gars yi këdd rek boom loxo bi un marchand ambulant il se retrouve à l'hôpital avec une facture de quatre cent cinquante mille amul fu ma ko fayee ñu ne na fay balaa ñu koy ñu ne na fay et aujourd'hui tout ce monde se retrouve là-bas ñu ne ñu ok léegi vous allez devant le procureur groupe 14 yi cinq yu romb yëpp ils viennent ils font deux minutes rëbës moi je viens ma ñëw Euh, le juge il me dit écoute euh, mandat de dépôt le procureur qui sur la base de l'article 80 ma ne ko ah oui mu ne ma woon est-ce que vous avez quelque chose balaa à dire balaa ngay dem ma ne ko mais bien sûr en fait je rejette Euh, cette charge bi nga xamante ni moom la ma procureur ki mu ne ma ah ouais ma ne ko wii parce que <laughs> mu ne ma est-ce que est-ce que vous avez des ma ne ko wii la vidéo de mon arrestation et sur internet ah oui est-ce que je peux la voir rek maître Sarr ne oui je l'ai sur mon téléphone mu ne ko ah ñun du ñu jël téléphone clé USB donc il faut que mu dem retour de parquet ba lundi ma ne ko man dew ma retour de parquet avec tout le respect que j'ai pour vous monsieur le ko parce que commissariat yi daf fees dañuy refuser. donc tu préfères finalement aller à. man ah, ah, que aller dans les dans les commissariats. mais oui.